asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñu ngeen leen di ziar tey di dimanche benn fan ci weeru novembre atum 2020 euh, ñu nekk fii ci clinique euh, le khalife général des Guinée ngeen gis euh, oto bi di door a gaare nii léegi sécurité bi war oto bi xalif bi war a ñëw nag dugg gisanteek patient yi avant muy dem ci biiroom ci kaw xam ngeen ni bii gars yi dañu liggéey ba cinq heures du matin kon defe naa ni euh, kër gi moom euh, saa su rek day fees liggéey bu métti mooy xaar gars yi donc defe naa ni loolu am na solo également ñu koy commenté di leen ko wax ngeen gis nag fële euh, ñuy jël sëñ bi ci image yi gros plan Kara nag tey laa àndal ci ci ci ci caméra bi. Euh, ngeen gis sécurité bi euh, daal di dar oto oto oto sëñ bi ngeen gis chauffeur bi nekkee position côté gauche muy euh, ma la sécurité est là sëñ bi nag mi ngi préparé wu d'un moment à l'instant pour wàcc oto bi sécurité bi daal di koy dugal bu ko defee ñu dem mu saafonteeg patient yi ñu accompagner ko ba ci kaw mu dem ci bureau kon. defe naa ni euh, sëñ bi mooy mooy wàcc noonu ginnaaw bi mu wàccee ci otoom nag ñu dox ndànk ànd ak sëñ bi daal di koy dugal ci biir gis ngeen sëñ bi tey également euh, comme d'habitude rek macha allah sëñ defe naa ni lii du lu bees ci moom bés bu ne euh, euh, lu yàññi lay sol lu loo xam ne lu am maanaa la lii aussi dafa am lu ñu ciy jàng mooy képp koo xam ne également yaa ngi ci yaa ngi ànd ak sëñ bi aussi war nga di jël exemple ci moom donc c'est important ngeen gis la sécurité ñoo wër sëriñ bi sëñ bi mooy dugg euh, ndànk gis ngeen sëñ bi fekk na ci bunt bi am na benn patiente bu toog sëñ bi romb na ko dem na fële ci côté bi nga xam ni foofu la. xar yi di faral di nekke ñu ngeen ñu suivre nag en direct sur la TMS TV euh, mu am xar boo xam ni euh, fan yi la la am doom moo moo moo nekk ni euh, sëñ bi taxaw noonu di di xool kon ñu ñu avancé ndànk dem ci biir mais ci sama côté droite am na ci patiente boo xam ni également mi ngi fii ci soo ba léegi di di di di di di di ruube xam naa ni bu ci kanamee dina jàkkaarloog sëñ bi parce que soo ba léegi mi ngi ruube Euh, gis ngeen ñu ngi commencé di di expliquer noonu sëñ bi moo koy yéen a ngi dégg. non non s'il te man maay di jóg maay faj jóg samay doom ñoo ma kinaan bi nga samay loxo ni ñu def man maay faj waa mbóo mi man la ñuy sàmm seen boppa man la waa leer gi waa màkka ñu tàkka ñu man la man bu ma fajoo kenn du faj bu ma kenn def loolu li ngeen di wax ni bëgguma ko dañ ma fekk may non dañ ma fekk may ndekki ñu de ñu andi ma fii c'est la troisième fois ñu def kanam pour lan. xoolal ni nga mel yow sa yaram bi nga ne boo fajul kenn du faj. kenn du faj parce que maa la gën yow. nga maa la gën maa gën ki la gën. kuy fayeeku weer man maa tax man may coronavirus. je m'appelle Fatou Diop né 31 octobre 112 eh yaa ngi may gàncax baram. nga ne yow yaay kan. man may Fatou Diop. 31 octobre 112 kuy fa non wax bàyyi ma yegale dama koy tontu kuy fayeeku weer man maa tax non bàyyi ma yegale attends ba bay taxawal. war waaw kon mbokk yi ngeen gis euh, sëñ bi mooy door a ñëw noonu mu am patiente boo xam ne nag soo ba léegi mi ngi ruube kër gi ngeen gis mu am euh, benn échange entre moom ak sëñ bi sëñ bi nee na sëñ bi nee na nañu nañu nagu ci dugg ci biir mu mu mel nii nag mbir mi commencé na tàng te te te te te duggaguñ kon tey defe naa ni fii tey du yomb Euh, le xalif général Alaaji Thierno Moule Sow mooy door a egsi noonu di le petit fils de su Ndiata Keita kon dégg ngeen mi ngi mi ngi défier sëriñ bi mi ngi défier sëriñ bi waaw. ngi dégg de suñu mbokk yi en direct su la TMS TV. bu ma kenn abiyee di ma dugal beneen abiyage na hmm. kon defe naa ni tey defe naa ni fii moom tey dana tàng parce que. dafa défier sëriñ bi te fii defe naa ni moom la ñuy wax fii mooy terminus bi fii mooy kër la xalif général des jinne defe naa ni façon jinne bu nekk jaar na fi loo puissant puissant boo ñëwee sëriñ bi daaneel la waaye moom dafa défier sëriñ bi ci buntu kër gi nee na sëriñ bi maa la sut nee na kuy fàcc ko suuf moom moo la sut ma loolu la défier nag sëriñ bi nee na ko nag nañu dem ci biir xam naa ni du yàgg léegi ñu xool moom ak sëñ bi kan moo mën waaw fan la ñuy mujjee xam naa ni suñu mbokk yi ñu suivre également loolu dana nekk lu am solo loo xam ni daañ ko dund aussi en direct kon le khalife général des Djinné le petit-fils de Soundiata Keita de Nima tengalaa da Yoro tengalaa doomu soxna ajaratu Mariama Camara de Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram kii mooy alaaji Thierno Moule Sow mi nga xam ne bi mu feeñee le Sénégal la àdduna yëpp xam lan mooy secret jinne jinne yi gën a yi gën a am doole ci kaw suuf mooy jinne roi mi ngi ci loxo sëñ bi kooku moo daaneel batalo joolaa bi nga xam ni rey na ñaari junni doomu aadama donc defe naa ni loolu am solo la. ça n'existe même pas ay coup woon ay copie lañ bëggoon ba si accident maaka bi man maa ko wax. kon mbokk yi dégg ngeen batalo joolaa bi nga xam ni adduna yëpp dañ ko seetaan ci télévision yi seetaan ko en direct moom nee na loolu loolu nee na batalo joolaa amul ñi nga xam ni ba léegi seen euh, mbokk yi ñu ngi leen di jooy. ñi nga xam ni ba léegi chaque anniversaire ñu defal seen ay anniversaire ñu euh, faatu ci biir géej gi moom jinne bi moo taxaw ne loolu amul loo xam ne àdduna yëpp même ñi nga xam ne dañu nekk ba États-Unis naxaru nañ ko li nga xam ne mosul am dans l'histoire du monde muy batalo Joola dégg ngeen jinne bi mi ngi ruubee sànq ba léegi nee na loolu amul kon xam naa ni euh, tey moom fii tey du yomb parce que comme xalif général ñëw na defe naa ne affaire yi léegi mu leer fan la ñuy fan lay wàññeeku wànnante lu mujj waaw non non man ba ma juddoo ba tey mosuma gis jinne am bi am jinne bi ma musuma gis jinne gis na dafa am loo xamante ni sa ndey mooy togg ba mu ñor nga sukk lekk bu mu jeex bu sa ndey toggul doo ma sa lekk sa ndey dina togg nag de togg ba pare inu ci nam këpp suuf waaw. yow loo tudd nga ne. Ndey Jóob laa tudd. sànq loo waxoon nga amul ça n'existe même pas man maay fayu dañ may def ay musiba may fayu. yow yaay waaw yow yaay kan bay fayu. néew ma la Ndey Jóob. Ndeye Diop mooy kan. Fatou ah. maa epam maa tax kuy fayee ko weer ngay fayee ko weer. ci sama date de naissance. déedéet noo taxee loolu. Ah. ak ma sawar pour tontu fu ma ko weer gis nga avant ma laa juddu nguur ak ndawal moo fi amoon. ndawal ñii sàmm seen boppa yéen a ma tooñ nag parce que yéen a ma dugg fi kon dama koy wax kon nu ma ko sentiré indiwuma sama boppa fi dañ ma fi indi. Ah. déglu ma déglu ma ku weer nan lay comme ban genre man maa wérul wala ñi ma fi kidnappé indi ma fi ñoo wérul du yow yaa faj nag day déet man maay kii wala di la faj mais bu ko xalaat sax waaw mais du yow yaa may faj bu ma la fekkee si kaw bu ma la fekkee mën na nekk mais xam nga lu ma gën a lu ma gën a intéressé bunte bi tijjeeku damay ñibbi jabar jàmbur kenn du ko kidnappé ankañ amuma fi mbokk fii dama leen salaamaaleykum kenn fayu ma. say mbokk ñoo la indi am na ku mu àndal am na ñu mu àndal. am na ñu mu àndal am na ñu mu àndal am na ñu mu àndal waaw kaay mu leer kaay kii di wax ni kan la àndal. sama yaay la sama yaay la ah? sama ko fii ci kër gi c'est important. kii sa yaay la. nee na moom àndut ak kenn. kon mën nga ñu confirmer que moom sa yaay la. waaw lu tax ngeen indi ko. boo leen gisee tax ñu indi ko fii c'est parce que ni mu menoon bu njëkkaat moom la menoon dafa changé. doxaleen si lu bari moo tax ñu indi ko fii. Mm-hmm. fan ngeen jógee. ñun Rufisque lañ jógee. Rufisque ngeen jógee. yow nan nga tudd. Ousmane Samb. moom nan la tudd. Ndeye Fatou Diop. moom mooy sa yaay. ok si suba ba léegi yéen a ngi fi. Ah, eh, léegi. waaw kon kon dèjà sa mbokk yaa ngi fi kon. kon dèjà sa mbokk yi ñu ngi fi kon am na ñoo àndal lu tax amoo fi mbokk waaw ma ne lu tax amoo fi mbokk. kon mbokk yi xam ngeen ni kii àndut ak xelam parce que bu fekkee ni mi ngi ànd ay doomam am ñeneen ñu mu àndal mu taxaw ne àndut ak kenn te ngeen ñu suivre en direct sur la TMS TV defe naa ni day ruube kon bëggalu leer moo tax ñu indi ay doomam kii aussi ci la bokk parce que gis naa ci suba mu koy téye yow noo tudd. man Baye Serigne. Baye Serigne fan nga jóge Rufisque. kii di wax ni sa la. la. kii sa yaay la kon defe naa ni leer na parce que nee na àndut ak kenn kon. lan moo tax nga indi ko fi. dafa moo tax. kon ba ci kanam. kon defe naa kon defe naa kon defe naa ni leer na kon mbokk yi sëñ bi bi mu ñëwee léegi euh, jot na euh, waxtaan ak euh, patient yi ngay gis mu am patiente boo xam ne nag xaw na ruube kër gi depuis ce matin ñu taxaw sëñ bi taxaw ñu wax ak moom. Euh, wax ak euh, ñaar ñi nga xam ni ci ay doomam lañ ñoo ko indi te bi ñu ko laajee dafa ne àndut ak kenn te sëñ bi bi mu ñëwee ci buntu bi également bi mu ko laajee nan dafa ne coronavirus ñu dugg ci biir salle d'attente bi mu ne tuddul coronavirus mi ngi tudd euh, Ndeye Ndiaye jóge ca Rufisque kon defe naa ni loolu leer na loolu filme nañ leen ko en direct sur la TMS TV te defe naa ni moom la ñu dund ak yéen également ngeen gis sëñ bi di door a Euh, egg si nii ci kër gi euh, ànd ak la sécurité nag euh, ñu dar ko noonu comme d'habitude ni ñu amee habitude ànd ak mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV la khalife général le roi des rois le euh, médecine traditionnelle le roi médecine traditionnelle internationale le maréchal le bourreau des dëmm the king of the king muy alaaji Thierno Moule Sow mooy door a egg noonu le khalife général juste egg si ci buntu bureau bi nga xam ni. Euh, fa lay recevoir patients yi ñëw fii ci kër gi liggéey bi nag euh, dañu nemmeeku euh, nu ñu gën a demee rek muy gën a metti parce que kër gi léegi dafa dem ba defe naa ni dafa xat sax ci ci Sénégal xat ci monde entier parce que patients yi moom bés bu ne dañuy fees fii moo tax sëñ bi il est obligé di liggéey fi mu ne nii ba suba teel ba 5 du matin donc defe naa ni yéen di koy dund ak ñun di ko di di gis image di gis salle d'attente bi également mi day fees patients yi fii la toog suba ba guddi ba 5 heures du matin kon defe naa ni loolu euh, nekk na loo xam ni lu am solo euh, ñu leen koy commenter euh, en direct sur la TMS TV ngeen gis kër gi liggéey bi dafa gën a metti c'est normal parce que bu fekkee ni li ko yàlla may muy sëriñ bi moom rek la ko yàlla may ci ko suuf defe naa ni bu toogee benn fan sax nit ñi dañuy am problème moo tax kër gi bës bu ne day fees guddi ak bëccëg te loolu du lu ñuy wax rek mais c'est des preuves yoo xam ni ñi ngi koy filmer di leen ko won toujours sur la TMS TV ak jinne yi nga xam ne également dañuy nekk fii di ruubee ci kër gi mu nekk liggéey bu méttee métti kon ngeen gis la xalif général moo door a egg noonu ci biir bureau daal di toog installé wu le temps nag ñu bàyyi ko euh, mu euh, noppalu un ñu génnaat dem jël patient yi yéegal leen euh, respecter mesure barrières yi installé leen. dooro nag waajal liggéey bi liggéey bi nag yombul liggéey bu méttee méttee métti mooy xaar sëriñ bi kon euh, ñi ngi leen di jox dig daje ba ci kanam ci également grand reportage à tout à l'heure laaj paas gaalu xeewal teer si na gaañi egsi leen kenn mu lay du laaj paas gaañi egsi leen gaal gi teer na ci tefesu xeewal egsi leen ku dugg raw ku dugg texe gaañi egsi leen gaalu xeewal teer si na gaañi egsi leen Thierno Moulay mooy capitaine bi gaañi exilé capitaine bi mën na bato bi mën na joow te du capitaine bi du réer du juum jaawale ah, gaalu xéewal teesi na gaañi exilé Thierno Moulay du laaj paas gaañi exilé général bi du laaj paas général bi du laaj paas Cerno Mulay day joow ba teeri ganaatu laay gaaru xeewa seesi na mooy Cerno Mulay Sow kiy faj aajo yi di teggi tiis yi koo koy Mulay Sow bàyyi peer du lay woo ceerno mu lay saw waa daaru laay du lay woo ci ceerno mu lay saw gaalu xéewal seeti na gaa ngi ñëw ci leen ceerno mu lay du laaj paas gaa ngi egg ci leen gaal gi deer la ku dugg raw gaa ngi dugg daal gi teer na ku dugg texe yaa ñi egsi daal gi teer na ku dugg sa aajo fayu àddina ak alaaxira daalu xewal yaa ñi egsi kenn mu lay du laaj paas yaa ñi egsi leen customers, whenever you have this kind of models, how you can use it. Donc, je donne la parole tout simplement à Omar Rachel, qui a le son, il va vous eh? expliquer. Si vous eh? avez donc cette bouteille de liquide buffet, comment eh? vous allez faire tout simplement pour pouvoir vous baigner avec cette liquide et pour pouvoir avoir tout simplement les bénéfices de liquide. incha allah mbokk yi si ngeen garab gi moo nekk nii lii nag liggéey na vite fait. 哎，我来吃了。哎，马干马干马干马干马干马干。eh ma xam ma xam ndax ma génne si affiche bi wala déet ma xam ndax ma dinaa génn. xamante ne dañuy yónnee ñu ñu jaay leen cuuraay. xamalul leen lan jaay bàyyi leen ma damay nit boo gisee sama image nga génn ma ma ku ma laal dama tuus fa tooguma fële fii lay dox tooguma tooguma mais xanaa boo ñëwee dana liggéey. après mu ma ko macha allah ci ci gën a yokk parce que programme yi dafa am njëriñ macha allah njëriñ kese la waaw. waaw sant yàlla bu baax dañ leen doon présenté.